mbokk yi ñu ngi leen nuyu ci turu sunu kilifa sunu sëriñ sunu lépp di sëriñ Sidi moom Cheikh Abdoul Ahad di ko ñaana yàlla yàggal ko fi lool weral ko ci li li yëngu yi muy yëngu mu am ci ngërëmal Cheikhul Khadim te ànd ko ñun naal yi mu am ci liggéey Cheikhul Khadim yàlla dimbali ko ba mu def ko ni ko bëggee te mu ànd ko njaboot ki te lépp ànd ko fekke ak tal te lépp nag luñ ci mën di yëngu mu dëpp ngërëmal Cheikhul Khadim ñu ngi leen nuyu baax di leen sant bu baax di jiital ci cant gi ak ngërëm gi mboolem jàngkate alxuraan yi nga xam ne bi màggal gi jubsee ñoom ñëpp waxoon nañ ñu leen ñu jàng ay kaamil te ñu bari woote fi wax ay lim yu bare bari yu ñu jàng ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ci turu sëriñ bi di leen gërëm ak mboolem durus kati xasida yi ak yëkkatikat yi nga xam ne dañ leen ko waxoon ci barab yi nga xam ne fa lañ nekkoon kenn ku ci nekk def ci yëngu bu xam ne sëriñ bi moom loolu moo ko gën a yitteel ci liggéey bi lu cay dolli ko soog caa dolli ko kon ñu ngi sant mboolem jànkate alxuraan yi ak xasida yi di sant mboolem mbokk yi ak xarit yi ak wëlër yi ak soppi yi ak taalibe yi ak mboolem daayira yi fu ñu mën a jógee kenn ku ci nekk jàpp gi nga jàpp ci màggal gi muy muy wax wala muy jëf lu mu néew néew rek sëriñ baa ngi lay sant sëriñ sëriñ baa ngi lay gërëm mboolem njaboot gi ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaan nga tasee tawfeexi sëriñ bi ñu ngi sant mboolem ñi nga xamante ne àndoon nañu ñun liggéey bi ci presse bi muy rajo yi ak télévision yi ak site internet yi ñoom ñëpp sëriñ bi ñu ngi lay jotale seenu cant boo xam ne mboolem ku ñu dem ci yow la nga war sa digganteeg liggéey bi def nga ci loo xamante ne yéene nga ko defee ak pas-pas waaye nag ñu seere la bu baax nag ne sa sa wëlër wi Youssou na la mu waxoon daaw loolu la waxaat ba ñu eggee ci màgg ga dafa wax ne def leen li ñu war def yëpp waa télévision bi te bu leen ci laaj benn dërëm noonu ma ko waxoon tamit defe nañ ko noonu ñu ngi ko jotal ak cant bu baax di ko gërëm di sant mboolem rajo boo xamante ne ak télévision yëngatu ci ak nu mu mën di doon ñi fi teew ak ñi fi teew ñëpp ñi ngi lay jote seen sant ñi ngi sant bu baax di ñaan yàlla bu baax bis bi ñu yàgg koo jëf ci yàgg koo fekk te lépp mu doon sa kanam te ñu dajee ci ngërëmal Seexul Xadim ñi ngi sant mboolem comité organisation bi nga xam ne mooy yi nga xam ne moom nga ñu boole loon ñu ànd ak ñoom liggéey bi ak mboolem dongay tërbiye yi ak mboolem turandoo yi ak mboolem ñi nga xam doon yëngatu ci màggal gi ak wat ñu mën a féetee te wuute gi kenn ku ñu nekk laxasoo woon nañ ànd ba liggéey bi mel ñu teew si jëmm ñi ngi sant yàlla bu baax nag di sañ di soññ suñu bopp di soññ mboolem ñu ñu bokkal kër gi ñu waaj di ñu tey ni ñu ko waxe woon ñu waaj fi ñu nekk nii ngir waajal déwén ba bu déwénee buñ dikkee lépp luñ def tey bu déwénee ñu gën a mën loola te lépp ñu ànd ko sëriñ bi ànd ci ngërëmal seexul xaddim am ci ngërëmal seexul xaddim te lépp nag leer yeeg yëpp ak ñaan yi yëpp yàlla ko suñu jàmbaar ja Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne kenn ku ci ñun da ngay jéem a fay fay bor jéem a fay yéene rek waaye mënoo ko ndax damaa jëlale sax ku ñuy tudd Cheikh Abdoul Ahad muy ci taalibe muy mu ci sëriñ moo nga xam ne muy aw turandoo lu mën doon képp ku di murit wala jurit am nga njukkeel boo xam ne war nga ko jël Cheikh Abdoul Ahad kon nag ñun ñi nag ñoo ci raw ku ñëw nañu ci fekk dem nañu ci bàyyi te lépp ànd ak ngërëmal sëñ bi te ànd ak fekk sëriñ bi ci bàkki Cheikh Xadim ñu ngi yëkkati kaddu gi nag jox ko Cheikh Abdoul Ahad